sang bi ñu ngi lay ziar bu baax waay. ngi lay di la ziar bu baax. ñu ngi lay bu baax bëggoon naa nga fàttaliwaat ma tur wi. Eh, Fallou mooy wax ak yow. waaw ah, kay sëñ Fallou Galas jërëjëf ah, ngi doon dégg sëriñ Saalihu Baal. dégg naa ko baax ndeysaan. fi mu duggee ci tasawuf. dëgg la. ak sun mag ñi. Mhm. mu delluwaat ci ab ki ko gën a jege muy Cheikhna Ahmadul Xadim. ndeysaan euh, ndeysaan sëriñ Tuubaa féete ñu ci wetu bawal gi mm-hmm. ku mel ne eh, seexul seexul islaam seex ibrahim dëgg féete ñu ci wàllu saalum gi dëgg la moom it tënk mbiram lépp ci fiqhu maalikiya dëgg waaye di dund tasawuf dëgg ci liggéey bu rëy ñu bëggoon rek nga ñëw ci meññatum tasawuf moomu lim jural senegal ak sun mag ñu baax ñi. waaw jërëjëf sëñ Gallas ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziar baax di kontaan ci jotaay yu mel nii nga xam ne bokk na ci dër yi nga xam ne ci dër yi aljana yi la. Mm-hmm. parce dër yi nga xam ne dañ koy waxtaanee yàlla yi di fa waxtaanee nit ñu baax ñi. di fa waxtaanee seen may ak seeni jëf ma ne loolu barab yooyu noonu mooy dëgg-dëgg li nga xam ne mooy xilaqu zikri bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax naan ida marartum bi riadil jannati fartaaw naan bu ngeen rombee ci dëri aljana yi na ngeen wit ñu ne ko luy dëri aljana yi mu ne mooy géewu zikar géew boobu nga def ku mel ni sëriñ saalix baal ñu ngi koy nuyu ci ubbi bu am solo boobu nga xamee ne def na ko Serigne Seydina Diop alkokki yi moom it war a ñëw feggoog yow Serigne Moustapha Diop mi nga Diop mi nga tudd ca Paris it war a feggoog yow xam nga ne jotaay boobu wala daayira bi daayira xam-xam la waaye nag lii mooy dëri aljana dëkk waaye sunu mag ñu baax ñi nag Sénégal dinaa ñëwee rek surtout ci côté bi nga xamee Serigne Salif Baal ubbee na ko surtout mooy léeg-léeg nit ñi senegal dafa am ngelaw loo xam ne dafa romb bu yàggut mu nekk ngelaw loo xam ne nag yàq na lu bëree bëri waaye rëkki na it ay nit ñu bëree bëri taaliba yu bëree bëri yàqoo nañ ci waaye it bëri na ñoo xam ne it ñu bëree bëri ñoo xam ne it seen pas-pas koyofee na ci yoonu tasawuf dafa nekk yoon woo xam ne islaam dafa am ñetti maqaama ñu ne mooy islaam wala ñu ne diine sax moo am ñetti maqaama ñu ne mooy islaam di imaan di ihsaan ihsaan loolu yëpp da nga ko jàng ci xadiisu jibril ba bi ñu laajee yonent bi sallallahu la mooy islaam mu wane ne mooy shahadatu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah iqaami salaa itaay zaka ba mu jeex wa sama ila hajjul bayt dañ ko laa la mooy iman mu jàngale it mooy an tumina billahi malaakati wa kutubi wa rusuli wa bi qadar xayri wa sharri waaye dañ ko la jàngalee al ixsaan nag lam tontu ca ngay xamee nag ixsaan gii mooy aqa maqaami diin parce que bañ ko laajee lan mooy ixsaan mu ne lan mu ne an taabud allaha ka annaka taraaw na nga jaamu yàlla ba mel ni yaa fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak boo nekkul di ko gis sax moom yàlla mu ngi lay gis kon amaan gis mën naa am am benn dox ci fóode yi bu mag a a di suufi wànq bu àgg ci yàlla mu ne fa in lam takun mooy boo fi nekkatut sax taraahu nga gis ko mhm. kon xam nga lii du yëfu xale waaye du yëfi gone waaye du yëf yoo xam ne kullu man hëbba wa dabba danaa war a ñëw rek di ci sànni di ca wax wala ngay xarab ñuñ kër balaa may départ maa ngi jaale alxadra almbàkkiye ci Touba soxna Waalo Mbàkke mi gaañu tey ñu ne mooy taawu Serigne Saliou Mbàkke almarxum di suñ Serigne bu mag mhm. di ñaanal soxna Waalo war na yàlla xaaral fa àjjana yàlla na dee di noflaayam yàlla teg loxo ci li nga xam ne mooy njaboot kon li nga xam ne mooy ihsaan nga xam ne mooy tasawuf mooy lan mooy fexe nit ñi daal am taxaquq ci maqaamawu ñetteel bi ci islam muy ihsaan parce que boo xoolee islam wala boo xoolee diine dafa am islam am iman am ihsaan islam dafa am tawba am istiqaama am taqwa tawba mooy tuub istiqaama mooy njub taqwa mooy ragal yàlla iman am lan am sidqu mooy dëggu ixlaas mooy sellal tumaaniina mooy am dal ci yàlla ixsaan am muraqaba mooy fooglu mushahada mooy janoo maarifatu moom mooy xam kon ixsaan moo gën a garaaw kon nag suñu mag ñii nga xam nag ñoom dañoo fexe fexe ba ki nga xam ne mooy taalibe bi ki nga xam ne mooy jullit bi ñetti maqaama wala échelon yi nga xam ne diine ji am na ko yëpp mu naanuwaay yooyu yëpp mu naan ca ba naanuwaay ba mu ba it mu daal di say naan ba màndi nekk jaamu yàlla boo xam ne jaamu yàlla bu set jaamu yàlla bu yàlla boo xamante ne daraam du rax bokkaale boo xoolee Sénégal ku mel ni Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul <laughs> tey jii nii doole bi nga xam ne am na ko ci réew mi nufuusun aali bi nga xam ne am na ko ci réew mi ndax dafa tëddoon di nelaw rek xëy am ko. déedéet. ndax dafa ndax dafa jëw rek ne man maa maa maa ne fii Mbàkke Bawol nangam nangam am ko. déedéet. dafa liggéeyal boromam sonn ci boromam boromam fayee ko ay nit ñoo xam ne bu ñu leen naaw leen ci jaww ji ñu jëm ko bu ne leen def leen ñu def ba leen ba leen ñu baax. <laughs> ndax réew moomu noonu nit war na faa nekk di saboté Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul. déedéet. kuy taxaw naan bil Mustafa nawaytu maa yujaddidu sunnatahu raraa wa inni ahmadu wax ko ba wax daal di koy jëfee samp ay diwlin dafa ay nit dafa ay boromi xam-xam ay zawaaya fii ci àdduna bi nga gis sa meññitam ak kum defal foo tukki ci àdduna gis suñ ne fii mooy kër sëñ Tuubaa ndax tëdd nelaw mokk bi ah jàkkaarloog tubaab bi ak doole bi mu am ak kàttan gi ko yàlla may ak li nga xam ne tubaab bi seytaane mu ko koy jaay nga résister ko ba yàlla jox la ndam ndax kooku kuñ mën a tuutal la ci mim réew ndax réew mi mën naa wax développement te événement bu rëy bii nga xam ne mooy dix-huit safar li muy créer ci liggéey bi dëkk bi li muy dugal ci côté économie ndax loolu nit mën na koo dàq déedéet te loolu zahir la rek buñ mën a waaw ci baatin ñaata nit yoo xam ne ay bandi lañ woon wala woon ay agresseur wala nit ñu bëggoon a aw feneen suñ sëriñ si wala ma jël ci misaal Cheikh Ahmadou Bamba jël la defar la ba nga nekk nit samp la ngay defar ay nit ñaata yoon kenn xamul nu mu dafa am benn woy ci woy Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu na mm. Tidiane mu ne kam aazal imaamu suuqata qawmin kon azillat li zulmihi l umaraaw mu ne sunu bi ñaata baadoora la jël mu def leen ay buur def leen ay nit yu màgg waaye nag azillat li zulmihi l umaraaw oh dafa mel ne téléphone bi dem na eh, ñu jaajëf mais ah, bisimilah li ñu defar ci ay doomu aadama lu mu créé ci li nga xamante ne mooy ci dëkk bi ci li nga xam ne mooy cohabitation normale suñu galas est-ce que xam nga ne Sénégal ni jullit ñi dominé chrétien yi ci lim ci catholique yi ci lim amul benn lëmb dëkk bu mën a xajoo loolu ci àdduna loolu mooy suñu saalo baax li ma wax mooy tasaamox bi mooy xajoo bi xoolal Nigéria bi nga xam ne ñun bëri na ñu fay dem mais xoolal histoire bi fa ci jullit ñi catholique yi demal beneen dëkk Mm-hmm. demal fii demal Soudan gi ma jàngee demal beneen dëkk jullit fu ëppee catholique rek léegi léegi nga gis fa benn jafe-jafe daal di xew parce que lan moo ko waral al nufuuz al wahabiya bi nga xam ne léeg-léeg dafay di feeñ te fu am doole wane li nga xam ne mooy seen doole waaye suñu mag ñii mm-hmm. yàgg nañoo dëkk ak ay buur mm-hmm. yàgg nañoo dëkk ak ñoo xam ne gëmu di doxal ci ñoom lakum diinukum waliya diin di dëggal ci ñoom kat dund ay gëmuñ diine islam waaye nekkuñ koo xamee dañ ñuy xeex ñu am ak ñoom nekk na mooy silmi waaye janaxu li silmi fa janax la waaye nag in udtum udnaa ci nii lañ doon nekkee léegi nag tey ñu gis yàq-yàq yi nga xam ne mi ngi commencé am ci société bi bu mel ni dafa am ngelaw loo xam ne daf fi ñëw rek ne daal liggéeyu Cheikh Ahmadou Bamba day déranger liggéeyu Cheikh Ibrahima Niass day déranger. Mhm. liggéeyu Cheikh Alhaji Malick day déranger. liggéeyu Serigne Thiénaba dafay déranger te ñii bu dëkk bi amee jàmm bu dëkk bi amee salaam nit ñi mën a xajoo mën nekk si jàmm ñoom ñoo dëgg la. bu nit ñi mënee dund diine islaam boo xamante ni ba mu ñëwee fekk na fi aada fekkoon na fi ceddo fekk na fi yenn yu baax diine xajoog ñoom ba jël yenn yu bon yi dindi ko yu baax yi fekkoon mu ànd ak moom c'est grâce à eux. loolu nag dañ leen ko war a dëgg la de. tey jii nii xoolal Touba ci exemple mooy deuxième ville lañ wax ci fi nga xam ne mooy Sénégal ñu ne titre foncier Cheikh Ahmadou Bamba mu am situation boo xam ne bu spécial la tey jii nii ñaata milliards moom lañuy ñuy jël doomi dëkk ba taalibe yi di ko def ci bëkk ba te léeg-léeg duñ ca xaar état. su xulafaa u nii si jamonoy Macky Sall ba ca Abdoulaye Wade état yi dañ daan soxla xaalis léeg-léeg di leen suuf ñoo ne abal ñu leen di delloo waat kenn du ko yëg. dëgg la bi fi Covid bi xewee ñii naan ñii naan amut ñii naan dëgg la ñii naan du dëgg mais suñ sëriñ si ñoom yàlla may na leen loo xam ne mën nañu xam lay zaahir xam lay baatin. Mhm. sëriñ Mountakha la la def bi gars yi wérante dafa génnee xaalisam ni mu ngi nii daal di teg. dëgg la kan la ko dimbalee. dimbalewu ko boppam. waaye ci boppam lay delluwaat ko. Mhm. ay doomam la ko def. ci réewam la ko def. ci état bi la ko def. ci Sénégal la ko def. kon moo def lii nii. xalifa Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul. tey jii nii xoolal boo génnee ci Afrique ci jamono boo xam ne jamono bii maa ngi dégg ñu ne Sénégal ñu ngi am ministre de l' intégr de de l' intégralité africaine mais yow intégration africaine. boo ko bëggoon a dox fii ci Afrique boo ci génnee waa kër Cheikh Ibrahima Niass dana yomb mu sotti. déedéet déedéet. boo demee Nigéria boo demee Niger boo demee Gabon boo demee Mali boo demee Burkina boo demee Soudan boo demee Érythrée Tchad. ba dem Amady dem la fay fekk. ba tax ñooy kilifay réew ma. Afrique da nga koy génn. waaw te ñu kilifay réew ma. Mhm. léegi nag ci jamono boo xam ne yaa ngi dox ci ministre de l' intégration africaine ñooñu nga leen di zappé wala nga leen a woon gannaaw. ndax loolu gën a yomb nga doxal ko. déedéet ndax danga bëgg a benn lay Afrique à travers Sénégal te am nga koo xam ne mën naa jaaree ci moom yomb. ku ne gis nga daaw Soudan bi nga Soudan xeex bi fa amoon ak coow li fa amoon. ci diggante tribu yooyu noonu. mais Cheikh Mouhamadou Mahi ba mu demee dafa waxtaan ak ñoom mu jeex. mu jeex tàkk. ñëpp daal di nangulante ñu teg ngànnaay yi. léegi nag loolu nga xam ne ñun am nañ ko. doole yooyu nga xam ne am nañ ko boo demee fële nga xamante ne mooy xabiral Malik yee ci baawoon. Cheikh Hadji Malick ca xam-xam ba Cheikh Hadji Malick ca jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Hadji Malick ca xam naka la jamonoy doxee ca zawaa yaaya xoolal xam-xam ak li mu teg wala njabootam tey li ñuy def ñaata nit lañ gindi ñaata nit lañ teg ci yoon tey jii état yi di leen zappe di yónni seen ay ndaw ñu leen di dóor di leen sànni ay xeer ci suuf tey jii bu taalibe yi génnoon dëkk bi yëngu coow nii ñu ne na sëriñ si wax maa ngi woo sëriñ si ne leen wax leen taalibe yi ñu toog te bu ñu waxee taalibe yi dal leen ñu dal dëgg la de sëriñ Muntaxa tey nii bu génnoon ne képp ku may déglu si yoonu murit barab sàngam kat bu fa dajee ji toogal kan mooy dem bu ñu tiitoon dëgg dëgg dëgg dëgg ca ñoom la ñuy dellu te dafa am benn message boo xam ne il faut ñu koy lancer ndaw yi réew mi ak waa réew ñu xam ko taalibe bëtam warta yegg foo xam ne war na koo may muy gis sikkab sëriñam taalibe warta gis sikkab sëriñam dëgg la al laa yurid bu dee taalibe bu defaru bu dee waaw jërëjëf <laughs> al muriidu laa yurid taalibe amul lu mu bëgg boor bi cheikhaka walaw abakaak lakinnahu lil xayri qad hadaak <laughs> yooyu ñu bàyyi ñëpp jàngoo ñëpp hmm. sa sëriñ lépp lu mu def gëmloo ko donte dalaa jooyloo jàppal na rek ci yiw la la bëgg a jëmee. même taalibe buy dem ne sëriñ bi wax na lii waaye ànduma ak moom ci lii. politicien bi moo ma gënal sëriñ bi. imaam ma gënal sëriñ bi. imaam. aywa. waaw eh, dangay teg foofu sa baaraam ñu ngi dellusiwaat. jërëjëf. ndax fi ngay junj fi lañ jëm si. jërëjëf su ko defee.